asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk jullit ñi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax euh, seen mbokk taalibi la buy wuyoo ci turu Modou Kama Thiaw di leen nuyu di leen ziyaare bu baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala jullit ñi fuñ mën a nekk ci àddina bi réewu jullit ñi fuñ mën a féete yàlla sàmm sàmm leen aar leen di yëkkat sama kàddu nag ci mbir moo xam ne dafa war a am ci Eh, juróom-ñetti fan ci weeru décembre muy ajuma bii di ñëw eh, ci tribunal bu dakaar di procès boo xam ne ku ñuy wax Omar Sall moo ko am lente ak ñi nga xam ne ay tijaan lañu wala ñenn ca ñoom ci mbir moo xam ne wax na ko ci wàllu tariqa bi eh, man nag maa ngi sama kàddu di woo képp ku ko dégg maanaam soññee la bis boobu pour ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp daje foofu ci bis ba ku nekk wone ne sa moroom doomu fa njëkk te loolu nag ñi may mujje ci woote bi ak soññe bi mooy ku nekkub tijaan moom yow lay mujje woo ngir lan ngir ne e, ñépp ñoo nekk ci menace ci wàllu diine ndax lan wahaabiya du allah allah la ne caaxaan la loolu ku xamul rek mooy wax loolu du affaire tijaan wala mboolam tijaan wala dajaloom tijaan mooy ay caaxaan ci moom alwahabiyatu bépp dajaloo bu nit dajaloo ni toog di ko def di ca jaamu yàlla di waxandoo ay baat di ko jaamoo yàlla loola lu manti doon même bu dee njàngum alxuraan la bidaa la kon menacé ab tijaan wala ñu ŋàññi ab tijaan dañu ŋàññi tasawuf bi sifa amma ak jullit ñi dul ñi bokkul ci tasawuf sax te sañar dajaloo jàng seen suuratu yaasin bu ñu àndandoo loolu bi daala ay caaxaan na ci gis-gisu wahabiyu ne yi kon nag diine lañuy fowe ku diine ñor rek bis boobu kenn wóor la fa jiitu boo xoolee fatawa bu muham docteur Muhammad Ahmad Lo danga cey fekk ci jukkib ñaareel bi page cent cinq cent seize muy wax ci sikkarandoo mbooloo mu ne alxulaasatu ana zikra wa duaa jamaatan wa bi sawtin marfuin bidaatun loolu mooy lan sikkar buñ ko waxee jàngum alxuraan dafay dugg ci biir dégg nga jàng suuratul kahfi day dugg ci biir subhanallah day dugg ci biir laa ilaha illallah day dugg ci biir allahu akbar day dugg ci biir dégg nga wadduaa ak ñaan ñaan rabbana atina boo xam ne am mbooloo mu nekk jamaatan am mbooloo wa bi sawtin marfuin yëkkati seen baat nekk benn baat di ko yëkkatee doo loola bidaa la du ay allah allah laa ilaha illallah bu mbooloo di waxandoo bidaa la di ci jaamu yàlla bidaa la subhanallah bu ñu yuuxu ca kaw bidaa la dégg bu ñu yuuxu ca kaw bi di ko jaamoo yàlla bidaa la xasiida yi murid yi di yëkkati di ko jaamoo yàlla bidaa la amul dara lu mu bàyyi lu mbooloo di defandoo kon nag du ay affaire tijaan kenn wuru fa jiitu benn jullit ñépp fa war a tase taxaw ngir diine taxaw ngir sa ngëm-ngëm taxaw ngir tasawuf gi ñuy fawee taxaw ngir ngir ngir sa tariixa boo mën a bokk foo mën a bokk yaa ngi yaa ngi dajaloo di waxandoo baat boo xam ne jaamu yàlla lañ ci jublu ñuy wax baat yu rafet yoo xam ne ñu ngi ci sàkku tiyaaba loolu ay caaxaan la ci ñoom ay folklore la kum naqari na nga dee noonu la ko waa ji waxee kon nag ñun ñépp la waxal kenn warut a des gannaaw ñi may mujj nag ci mbir mi mooy affaire tijaan ak yooyu maanaam képp kuy tijaan moom di des gannaaw kooku man xaw ma ci yow dara damaa jàpp ne kuy tijaan moom amoo droit des gannaaw te te fekk nga mën a ñëw rek amoo benn ngànt moom tribunal ba rek moo war a doy wala ñëpp war a tase ñëpp kon maa ngi ciy soññ sama bopp mbooleem jullit ñi. même ñi dul tas ñi dul ay niti tasawuf te yow doo waxaa bi rek ñu ngi lay woo ci affaire bi rawatina nag ñi bokk ci tarixa yi ab tijaan moom deesu ko woo ndax moom moo war a woote wasalaamualeykum wa rahmatullah